لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه دور الرحمن الرحيم. ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jottali kàddu yu bàyyikoo ci Serigne Touba ak Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne fi jëmmi Serigne Touba ci di ñaan suñu borom ko fi lu lool tam ko gër ba taxawaay bi nga xam am na ko ci lislaam am ko ci réew mi te àddina suñu borom gërëm gër ba mu yàgg fi lool mu yabal ma ma ñëw fii li moo ko baaxoo defee ci ndigalam ndax màggal gi lépp luñ ci def rek ndigalam moo ciy jiitu ak ñaanam moo ciy jiitu xelam moo ciy jiitu xalaatam moo ciy jiitu ndam buñ ci am itam lépp itam ci moom lay delluwaat kon tey bi ñu ñëw ànd ak ñi nga xam ne ñooy saytu màggal bi di njabootu Sëriñ Tuubaa yi ñi nga xam ne mën nañ fi ñëw teewal fi ñi teewul ndax xam gi saal bi xam moo tax ñu bari sax waxuñ leen ko ndax buñ dikkee te amuñ fi ñu toog itam fitne rek lay doon ci nit ñi kon ñu ngi yéegee di ko teg ci loxo gouverneur de la Mouhamadou Moustapha Ndaw ak mboolem ñi mu àndal yëpp tàmbalee ko ci préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Ndar ak préfet bu Diourbel ak mboolem chef service yi fi teel yëpp bàyyiwuma kenn moo ko xasee tudd rek di ko yóbbante nuyoo ci kilifaam ko ci ministre de Abdoulaye Daouda Diallo jaar ci premier ministre ba àgg ci président de la moom mi nga xam ne moo ko teewal ci région bi màggal gi ñu fës fës ko yéenee tàmbali tey ndax am na ñaari daje yu jiitu woon mooy yu ñu tuddee CRD ñu defe woon ko ca commune bu Touba te Serigne Ousmane Mbacke teewoon ko ak Abdou Lahad Ka ba ca desaat itam ñu defaat muy CDD bi baax si ci ndaje bi waxtaan bi rek fàttali rek lay ndax màggal bi moom ñëpp ko xamoon ab dayoom ab dayoom ak tolluwaayam ak ñu surtout xam ne kon xanaa dugg ci biir wax ndax di fàttali màggal bi dayo bi mu am ci réew mi daanaka sànni say wax rek la ndax sëriñ Abdou Lahad Mbacké daa wax ne lu ne fàng diisu ko woon ko amu bët te ko amuti bët mëtta wax ne du gis kon dayo màggal bi fi mu toll daaw ñi doon natt di xayma fi nit ñi toll dem nañ ba wax ne weesu na sax ñetti million waaw loolu loolu ndaje mu tuuti kon loolu am na génn kilifa tariixa bu mag ci Sénégal waxoon na bu yàgg ne màggal Tuubaa dafa mel ne liir buy dooru juddu liir nag bu juddoo mu ngi ko solal ren bu déwénee faaw nga nataat même bu mbaa doom bu sol màggal Tuubaa kon noonu la demee lépp loo xam ne def nañ ko ci rek bu déwénee li ñuy ñaan mooy ñu fexe ba yokk ko ak Vous xam-xam fi jamono toll ci xat-xat ak ay yitte yu bari bu tee li suñu warteef mooy sàkk ba fañ mën a yokk ndax ni ma ko daan fàttalee rek dafa am ñaari fànn yu ko seq mooy li nga xam ne njaboot bi ñoo ko defal seen bi teel li nga ne état bi moo ko mu li nga xam ne taalibe ya koy def ñëpp xam na ni mu toll mooy xayma yi ñuy natt ndax bañ ko mujjee seet te da yokk demoon nañ ba wax ne màgget gi boo xoolee li muy dugal ci li ñuy wax taxe direct ak indirect yëpp demoon na bu weesu ñaar téeméer milliards kon loolu du feet goo xam ne daanaka économie réew waaye màgget gi day feet goo xam ne day yëkkati koom mu amaat geneen fànn yu bare bare ci loo xam ne bokk na ci lim gën a suyee ci Sénégal am stabilité amul dal am jàmm ñëpp àndandoo nekk benn mooy màggal Tuubaa bu agsee amul diw ci tarixa sàngam la bokk dem na sax ba ñi bokk ci diine lislaam am na ci ñoo xam day ñëw di màggat si li ñu tuddee diw ci xeet wi la bokk wala xeet wee la bokk te loolu fu am réew yàqu wala mu tas rek loolu ko yàq màggal Tuubaa bokk na ci rôle yi ñuy gën a suy mooy boo agsee kenn xàmmewut kii ci xeet wii la bokk wala ci xeet wi la bokk bokkut nag wàllu ruux gi nga xam ne képp koo xam ne ñëw nga fa da ko fa jële sa digg sa borom muy yëg-yëg boo xam ne kenn ku ne yaa ko xamal sa bopp ba saa soo fi ñëwee bu ëllëgee kenn dootu la ko kenn dootu la ci yaay am bëgg-bëgg mënutu ko kon magal bi boo ko doon natt ci fan lim indi ci jari ci Sénégal bari na lool kon nag loolu saa su ak seen li nga xam ne nit ñaa ko ci def waris naa ko ba di ko yokk ba at mu jot at mu jot nit ñi seen lekkeen ak seenu dundeen di gën a rafet ci biir loolu nag gouverneur ñu lay yóbbante ci say kilifa ci ndaje ndax ndaje mi itam du ndaje moo xam ne dañ fi toog kenn ku ci ne di tagg sa morom wala nga wax lu baax lu sa morom def ndax loolu tax koo jug li ko tax a mooy xool kenn ku ci ne engagement yi nga xam ne bëgg nga ko fas nga ko yéene jéet ci biir màgget yi ne buñ ci àggat naa ko def ñu xool fa mu kon nag. ba lu ñoo dugg dañ lay sant bu baax a baax gërëm la ci li weesu ndax nit bu fekkente ne def na lu baax war nga ko sant gërëm ko ndax bu fekkente ne la ko war defu ko boobaa bu fekkente ne xaraboo ko itam ak maam dalay war ndax Serigne Touba dafa bokk ci lim jàngale ci yoonu murit mooy dafa bañoon njàmbat danaa wax ne yaa rabbi in ataytani fa shukru wa in manata fa ridal wa saw yow suñu borom maa ngi lay ñaan boo ma mayee ma sant ci xéewal yi ma defal bu fekkente ne xañ nga ma nag ma muñ sant ñu itam noonu rek li ñu doxee moo tax Cheikh Abdou Ahad Mbacké wax naan du ma gërëm ku ma deful dara waaye képp ku la defal dara ba ñëpp gis ko war nga ko caa sant bu yooyu itam yaa ngi ànd ci ñi nga xam ne ñu def nga leen ci seen taxawaay ñu ngi leen ci gërëm di sant itam sa kilifa yi yi nga ko defal ci seen digal ndax xam na ne ñoo tax nga def di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan ndam li ñu ci amoon daaw ren ji ñoom ci lu ko parce que suñu te lépp ñu day ceeg li nga xam ne moom lañ ko defal day ceeg gërëmu suñu tubaab li nga xam moom lañu rek li ci des moom sëñ Ousmane ci ci biir wax bi ak yeneen ñi nga xam ne ñoo ci war a waxaat danañ ci dikk ku ci war yëkkati kat waaye li nga xam ne danaa ko ci fàttali rek muy loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la mooy màggal Tuubaa yi mu ngi dugg ci biir nawet bi buñ doxaatee ñetti at wala ñeent gën jaa juróom dana fekk màggal bi nekk ci biir nawet bi loolu nag buñ ko sóoraalewul nëgë ni bàyyi ko xel buñ ba àgg ci daal metti ci nit ñi lool ndax ñëpp xam nañ fan yi Touba li ñu dund ci mbirum li ñuy wax ndax am na ci ay quartier yoo xam ne ay téeméeri kër génn nañ seeni kër ne te am ndoxal ko yóbbu loolu nag boole mbedd yu mag yi nga xam ne moo jëm si ci biir dëkk bi tey jii rek bi may ñëw fi tolloog ba ju communautaire bi am naa fa lu jóge waxtu ndax circulation bu xat loolu nag bu ñu ko saafarawu ba àgg ci màggal ko xam dugg na ci biir nawet bi dana métti ci nit kon nag loolu yéen ñi nga xam ne yéen loolu war eh, ñu ngi leen koy songi di leen ko fàttali yéeg nañ nag ne ministre bi yor loolu bi mu fi ñëwee jottali na ko président ba président joxe na ci ay ndigal wax ne nañ fexe ba loolu saafara kon loolu yéen ñi nga xam ne yéen la ko président sant yéen itam ñu ngi leen ci soññ ngeen ngeen cee defaat yitte ba ci doole ko tam mooy ñu yor wàllu courant ndax ñoom itam faaw ñu soññ leen ndax li tax ñu leen di mooy Touba day dëkk bu mag a mag waxoon naa ko fi daaw li ci ëpp courant bi dafa topp mbedd yu mag yi rek waaye boo duggee ci biir quartier yi quartier yu baree bëri amul courant loolu itam président joxoon na ndigal ministre bi moo itam ñu ngi ko ci soññ ndax waxoon na ko ne na def étude bu mag ba xool quartier yi nga xam ne amul courant ñu seet ñu fexe ba saafara yaakaar naa ña ngi ca liggéey ba waaye ñoom itam la ñu ngi leen ci soññ ba lu ñu ci man fii màggal yi ñu fexe ba réaliser ko ndax euh, ñëpp xañ na mënaguñu am fi saasa waaye bu ñu soñoon mboolem ku dëkk ci dëkk bi rek courant bi ak si jaww te jàpp naa ne bu ñu ko doon natt ci di xool kër yi amul courant genn wàllu dëkk bi sax amul courant kon loolu itam mën naa defaati jégg bu baax a baax bu ñetteel bi it mooy ministère bi yor wàllu infrastructure mooy yor wàllu tëli yi ñoom itam faaw ñu soññ leen ndax li tax ñu ne di soññ waxoon naa bu yëngu koo xam ne boo ko waxee ci biirum néeg mu dégg waroo yëkkati sa kàddu ci rajo bi di ko soññoo ndax booba weer na leen lay ndax xam naa ci wóor wóor ne président ndigal jëm ca joxe soññee ca ci tëli yi waaye daaw lañu waxoon danañ ko def laata màggat bi mu xatoon ba defuñ ko woon ginnaaw màggat gi ak léegi di ci des ma tudd ñaari weer booba fi ne saa soo dem laaj lañ lay wax du wax joo xam ne mën nga caa jàpp ba fan jii laa leen di soññ ki nga xam ne moo yor asiru mu xamal ma ne léegi jàpp nañ ne picc si biir yëpp am nañ ko balaa yàgg daañu ko tàmbali. loolu itam li tax mënu su ko ñàkk fàttali mooy cépp ku dugg ci biir dëkk bi da gis ne tëli yi fi yàqu dafa bari loolu rawatina sax ba ci li jege jumaa ji am na ci tëli yu bari yoo xam ne. yéexatu jaa wala boo fa jaaree da nga moytu ba muy jur ay accident kon loolu itam ña ko yor ñu ngi leen ci soññ ngir ñu gën caa defaat yitte ndax kilifa kat boo nekkee ci ginnaaw bi ko dimbali loo xam ne wóor na ne lii joxe ci ndigal lam ci war def def ko ca boo ko bëggee jàppale yow it war nga caa def yitte bala moo it dama bëgg mu am ko ndax ki ne ci boppum réew mënta weesu santaane joxe ndigal. waaye ñu ci ginnaaw nag bu ñu ko bëggee dimbale war nañoo fexe ba ñoom itam la kilifa gi santaane ñoom itam ñu def ci yitte ba bu lépp mënta sotti itam ñu feeñ ca seen yéen ak seen yitte ci tënk li ci des muy mi moom Serigne Cheikh Aliou dal xel bu baax démb ndax ñi ko jiite ñëwoon nañ fi buñ dikkee itam yabaloon naa leen ci moom ñu ngi jokkoo moom boobaak léegi waaye itam am na leneen ndimbalu ci fay ndax am na forage boo xam ne Serigne Cheikh bënn na ko bu yàggul benn taalibe joxe ko addiya forage bu mag la boo xam ne ci yëpp Touba rafet nañ jortu ci ne bu duggee ci biir réseau bi ndox mi du manqué xam naa danañ ci waxam kon ci gàttal ak tënk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di teew di ñaan ci barke suñu Touba ndaje li ñu tàmbali liñ ci jublu ngir bëgg màggal ni mel mu raw ni mu daan yàlla nañ suñu borom dimbale kàttan na ci ba lépp sotti jàmm ndax ab jaam itam lu moom am yéene sotti gi ci loxo suñu borom la rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh